toj na làmb waaye am na koo xamante ne bu duggul ci live bi dina ma bàyyi àdduna ak àlaaxira kan la. si ñaar. kii sa sa njële sa njële sa si soxor yi. bëri force nag. la. moom de bàyyi na mu fekk àdduna ak àllaaxira léegi léegi ci commentaire lu ne yegg na moom. bës bës jël la foog nga foog ko. du la sa mu foog nga ne ko foog nga waxal ko ay baaxam ne ko takkal jabar rek mu jël la. <laughs> bu tax commentaire yi yàqu waaye. favori du combat pourcentage. favori du combat pourcentage. Hmm. pourcentage. pour cent bi ñu nekk ci. Boy Niang lu bees Balla Gaye Balla Gaye mën na def surprise Boy Niang favori à soixante pour cent Balla Gaye à quarante pour cent donc à à soixante pour cent Balla quarante pour cent waaw mën naa la lu tax Prince tëjal sa micro Prince tëjal sa micro non mën naa la wax bouton bi nag waaw mën naa mën naa hmm. la lu tax. wax ma tax. bon Sénégal dañuy def tey jii Youssou Ndour mi fa nekk mi fi nekkoon ba tey jii mooy continuer euh, Yékini bi fa nekkoon ba tey jii mooy continuer Bombardier bu fa nekkoon ba tey mooy continuer sportif bu am trente nangam jëm kaw. bu am boo mësaan am vingt cinq ans di entraîner boo jug boo juglaal bi fajar gi kenn du la dégg. mais boo amee plus de trent deux ans jëm kaw sooy soo entraîné ba fajar gi boo jug ñëpp lay dégg. lu bëgg a wax foofu. non Boy ñaam moo gën a nekk xale. Mhm. moom la yaramam gën a nangu. Mhm. parce que boo xoolee tey sax physiquement ñu ngi booy balla effort yi muy daj bien vrai que jàmbaar la mi ngi góorgóorlu bu baax a baax effort bu muy daj boo ko xamee da ngay xam ne yaramam daj na coono parce que daj na coono boo xoolee carrière fi njaar ba activé effort effectivement day daj coono mhm. bu dee ay espoir ngay def daj nga coono bu fekkee ni leneen leneen ngay def nga coono effectivement da daj coono kon mhm. tey ji Boy moo gën a bees mhm. léegi fi fi yaxee fi Yékini tolloon ba Boy Niang jële ko fa ba ki Balla Gaye tol jële ko fa Boy Niang foofu la toll mm, dégg naa la Yékini bi ko bi bi ko Balla di daan man góob li tax ma ne góob loolu parce que boobu man xam naa fi doole Yékini tool doon naa contact ak moom. Hmm. xam naa nan la préparé xam naa. xamoon na ni boobu doole bi jeex na. boobu am na doole. dafa lu bari. Ah, des na lu bari. mais boo mais Balla buy ñëw da ngay xam ne kii am na kuy ñëw. ok ok ok. loolu nag sànn loolu nag buggul wax ni lool li ma wax ni hmm. bëggul wax ni diw mooy daan wala diw daanu mais dama ne xale. am am na âge bu muy toll. préparation combat am day gën a yomb que nit boo xamante ne tey jii Balla jël na roi des arènes def na lépp lu mu war a def. tey Boy Niang moo war a ñëw prouver. donc maanaam yow su ma la déggee ci cadre entraînement nga ko teg ak cadre. foofu rek laa ko euh, euh, euh, ok da nga bëgg a wax sax mais Euh, dafa am lu bëri lu ko dab ci yaramam loolu nga bëgg ba dafay coono yu mu war a daj du ko daj. loolu c'est normal parce que la jël na roi des arènes def na ñaata combat at mu ñaata at mu nekk ko ci taxaw taxaw ci kaw ci kaw gi c'est très normal. non baal ma de yëkkati junior. waaw baal ma dogguma la ah. hmm. mais buzz. foofu hmm. du ma d'accord ak junior. waaw lu xam nga ni tax. parce que tey Balla Gaye dafa nekk si série de combat tey mag yi mageewul booy ñaar loolu at yooyu ba pare Euh, dafa nekk si série de combat dafa bëri deux combats consécutifs. si mhm. biir deux combats yooyu Boy Niang sooy xool benn yoon si bëri. Mhm. mooy combat ma xam nga fan nga may xam mooy waxuma dafa màggee dama ne yaramam moom dafay daj coono moom li muy imaginer ñaata combat la pareegum ñaata combat la ci at bi ñaata combat la passé Boy Niang yegg seegul foofu moom mi ngi à vingt sept xaw nangam. kee mi ngi di 17. foofu laa ko teg. mais tey. Euh, te loolu. dañ cee xool si te loolu man man loolu dama koy yëg sa moroom da koy yëg mbër bu la ko wax am na fooy toll maanaam coono bi ngay daj dafay dem ba dafay utiliser sa yaram maanaam ñun dañuy jàpp tey jii benn Youssou Ndour bi taxawoon di mën a woy yor voix bu mu yoroon ba tey jii dañu jàpp ne moom la nekk ba tey parce que monument la mm-hmm. waaw mais lenn tam am na màggetum jinne day dese ngalaju man waxuma dafa màgget yoo comprendre waxuma dafa mag de moom xale la de mais xale dina daj ko xale dina daj coono boo xamante ni mhm. day yàgg day chronique mais xale bu am hygiène de vie nag waaw non xale bu am hygiène de vie xale la mag mag bu am hygiène de vie mais boo dajee coono hygiène de vie mënul foofu dara. c'est que xam ma instant j'ai le droit de réserve. Mm-hmm. parce que dama sëkk ak Yékini Junior ay waxtaan. ay waxtaan en privé. ci yeneen mbër ak ci yeneen combat. mu defal ma ay révélation mais loolu dafa méngoo ak fu mu tool nii lu muy wax nii ma xam fan la bëgg waxee mais mënu maa teg yax bi parce que a waxee waxee parce que dafa naqaree waxee Sénégal bu dee bu baax mais ma cee dugg ndax dama am droit de réserve Sénégal bu dee bu dee bu dee bu dee bu dee sportif nga si sportif nga ko teg moo tax euh, bë moo tax bëz ma fonk la xam nga lu tax mm-hmm. li nga def nii du musuma ko def ak nit mm-hmm. dama gëm professionnel mm-hmm. parce que da liggéey ci temps mm-hmm. te man ak yow mën nañ di waxtaan des fois mais leneen la ñuy mm-hmm. wax mm-hmm. bi may woo nii nii nii da nga jékki rek woo ma may décroché dama jékki-jékki décroché parce que dama xam ne ci sa liggéey nga nekk mais man tam su may wax maîtriser wu ma maîtriser wu ma mystique maîtriser wu ma leneen li ma maîtriser mooy espor te à l'âge de quatorze ans quinze ans treize ans la commencé di entraîner ba fi ma toll nii nit musuma gis ma simmeeku mun a ma déet te li may liggéey xam naa ko léegi parce que jaar naa ci ba pare jàng naa ko ba pare léegi dama koy produire kon nag mën naa ci apporter làmb avancé. dama mës a waxtaan ak Papa Sow. waaw. Ah. ci combat bu mu jógee digganteem ak Siteu. waaw. Ah. ma ne ko Papa bul bàyyi. du tax nga bëgg bàyyi il faut sortir par la grande li nga def ci làmb yëpp pour la nga bëgg a décourager bàyyi. Mm-hmm. mu defal ma benn genèse. Mm-hmm. ne ma bës làmb dafa doy waa du ma tudd ay tur mais je vais vous ne ma damay bëre benn combat ma gaañu dem hôpital bi ma war a fajoo dama dugg tag ci hôpital bi promoteur bi tëgg sama combat xam na ni man dugg naa ci hôpital bi mm-hmm. information yi àgg na ci moom ma def sama rajo yu ma war a def yëpp mu nekk blessure bu sérieuse mhm. promoteur bi infiltré hôpital bi mhm. ne leen ko amul dara dara jotu ko mhm. papa génn ñu ne ko dara jotu la mu demee noonu soox ak noonu continuer carrière mais affaire bi di continuer di metti di continuer di metti mu nekk ay séquelles yu muy traîner ci ay combat ci ay combat ay combat mu dem ba loolu pénaliser ko ci fin de carrière mooy diggante mu Siteu dafay forcer dafay forcer dafay forcer mais tey blessure yi day ñëw day aaw day jóge fii bàyyi fii dem feneen ak feneen ak feneen ba tey moom li mu bëgg a préparer nekk top niveau du ko mën a ne Papa Sow dafa ma ne buzz seetaanaatal sama combat ak Siteu boo seetaanaatal sama combat ak ngay xam ne heure bàyyi jot na Papa Sow bi woon nekkatul Papa Sow bii parce que Siteu bi mu ko yëndoo génnaat mu rëpp nga dem xooli sama combat booy Boy Sey bi ma yëndoo booy Sey booy sëy rëpp xoolal ni ma ñëwee tàkk ci kaw Boy Sey dama ko tàkk ak ay crochet yu sap-sap dama ko dàq dàq dàq dàq dàq ba mu jeex ma song ko braqué ko mais xoolal fii je n'ai plus le réflexe d'un combattant je ne suis plus agressif le réflexe mooy nekk na en mauvaise posture bàyyi ma xool nu may nu may nu ma koy daanee. alors que si je si j'étais un vrai combattant. xam nga boobaa nooy dagu dagu la de. Mhm. su boobaa xoolal booy dañ lay windee booy booy des fois dañ lay da am benn action mais sa bët yi ñooy dem mais yow doo dem. da ngay taay da ngay taayale wi ñaaru. foofu euh, dina d'accord ak lu mu doon wax si Balla Gaye. mais mais mais presque ma daane de gis nga Papa Sow daf ma expliquer loolu. Mhm. ma toogaat ma ne nekkati ñun amuñu xam-xam. dama toogaat barki yàlla ma ne nekkati ñun amuñu xam-xam dañuy toog ci live bi di wax mais amuñu xam-xam xoolal Papa Sow li ma expliqué rek man ça m'a permis de tout comprendre. léegi nag kon Yékini Junior su ma ko déggee. maa ngi Yékini Junior sax parce que maa ngi Yékini Junior ci yeneen lañ doon wax ci yeneen mbëri ak ci yeneen combat mais bugguma ko dévoiler mais sama waxtaan ak Papa Sow moo ñëwaat sama xel muy justifier ma ngi Yékini Junior li doon wax ci leneen mm-hmm. kon léegi moom bëgg a léegi kon expliquer Yékini Junior fu muy waxee dafa leen bëgg a wax kon Balla Gaye dafa traîner ay mbir yoo xamante ne amaana. Ah. loolu mun na ko causer préjudice ci combat bi Yékini Junior na nga bëgg a wax wala bëgg a wax loolu. waaw non loolu mënu ma ko wax ci combat fii ñu toll. <laughs> mais euh, dama la dama la bëgg wax ni loolu Papa Sow wax la noonu. waaw. tey jii ñun génération yo lañ yoo xamante rawante wuñ parce que tey jii. Mm. moom li mu yëg. Mm-hmm. man su ma ko yëgatu yëg naa tuuti ci moom mm-hmm. Balla bu ko yëgatu yëg na loolu ci moom booy sëy ñeneen ak ñeneen ñi ko yëg ñu bëri tey jii ñi ñi ngi sori mm-hmm. am na génération buy ñëw muy ñoom rek rek ñoom booy ñoom nangam sàngam ñu bañ ko u ñu bëgg ko ñu ngi ñëw c'est moom laa la doon wax sànq may la même Balla bu daanee làmb ji li koy dese du bari parce que dafa daj coono yow kon ci ci coono boobu noonu da nga bëgg a Balla am na yu muy traîner yoo xamante ne dina toll ci yenn action yoo xam ne da doon yomb ci moom mais léegi action bi bët bi rek la bët bi rek koy gis. waaw mais moom yaram bi de ko mun a di ko mun a appliqué. voilà automatisme boobu faa nekk. ok waaw eh, loolu moo tax nga jox 60 pour cent booy ñaar waa Prince. waa attention d'accord naa ak ah, Yékini Junior si lu mu que soo demee ba tool fenn yooyu ak ah, euh, Papa Sow kaw Papa Sow et mais mhm. dama leen bëgg wax loolu d'accord naa si man man damay sport comme ñoom ñëpp moom dañuy ànd de sport mais ku nekk di compétir laa la wax. mu ngi mhm. compétir mu ngi si série de deux combats war a bëre troisième combat bi. dafa taxawul quoi léegi léegi may résumé léegi da nga may résumé del ci ne loolu du ci dara dafa dangay ngay daj coono dangay use usé. da ça veut pas dire que nag mën nga perte doo du daraay combat bi. Mhm. mais boo ko boo ko dajee dajal ko dajati ko dajati ko léegi du yàgg maanaam tey ji ci durée. Mhm. boo ñaa moo ëpp chance ci durée que Balla. Mhm. mais Balla Gaye su ñëwee téye boppam tey. su ñëwee téye boppam di xaar faayu bo euh, booy ñaa. parce que bu boobaa booy booy ñaa. dañuy dellu saa dañuy dellu saa si li bi teg ko pression. waxam kàddu bi mu waxoon teg ko pression. Hmm. loolu tam c'est très important te nag bu leen fàtte ni que Boy Niang ay ndaanaan la ko yor de waaye tam baala Gaye ay ndaanaan ñoo ko yor. non yow da ngay dégg yow da ngay yóbbu feneen débat bi. dama la bëgg wax rek que mun na ñëw téye boppam jël en considération lii yëpp ngeen wax mooy que ni que réflexion mu amoon mun na ko bañ a amaat damay d'accord ak si yow même si man dama gis ni que série de combat moo ko si a. mais mais mais. dafa am benn benn message bu ma jot ci suuf parce que instant man j'ai perdu les commentaires ah maa ngi jéggalu gars yi euh, depuis trois jours quatre jours saa yu may live dinaa toll foo xamante ne damay perte les commentaires commentaires yi day càng du ma gisati dara. ñëwatul fii ñëwul. waaw commentaires yi ñëwul mais. si jum la taxawee jum maa waaw man mu ngi taxawee man ci mend osa donc non mais gars yi ñu ngi koy gis parce que chaque fois noonu lay def. day day càng ci ñun mais gars yi ñu ngi ko ne commentaire sinon man dinañ ma ko signaler mais man maa ngi jot benn message par WhatsApp message bi benn expert la mu xamal ma ni moom il est pas d'accord parce que moom jàpp na ni que si un lutteur s'entraîne régulièrement warul mun a am problème de réflexe mais foofu moo yi Yékini Junior mu ñu bàyyi dans le doute xam nga la mooy bàyyi ñu dans le doute. Mm-hmm. gis nga boo waxee ni de façon vague day mel ni yow da nga. bëgg wax ni que maanaam gars yi ils sont pas réguliers dans les entraînements te pourtant yow yaa li ngay wax noonu ci Balla yow yaa ngi koy wax ci yow est-ce que est-ce que kon te pourtant tu es régulier dans dans les entraînements est-ce que c'est une question de régularité dans les entraînements wala coono bu ñu daj ci entrainement la ba mu indil leen ay blessures wala fatiguement la wala yaram bu nagam la wala lan la bu ñu bàyyi dans le doute tojal yax non man man lu may régulier lu lu ma régulier régulier régulier mais méthode méthode comme avant. Mhm. lu mu régulier liggéey lu mu bëgg bëgg. mais amoo combat tam. même amee combat même su ma amee voilà léegi gis nga su ma amee combat tey jii nag si laay door a ñëw di régulier te lu ma régulier régulier dañ may defar programme su ma paree damay delluwaat ci sama utum xaalis. kon da ngay conf da ngay message bi nga xam moom sama expert coach Bakary moom la ma yónnee mooy kon vous les lutteurs vous n'êtes pas régulier yéen ñëpp régulier woo leen. non. Beuz. Euh, non Modou Lo régulier non non non non non Boy Seye Boy Seye régulier la te dafa dem même même même ma ñëw damay nuyu coach su Bakary à passage coach su bu mag la lu muy wax dama koy dégg. Euh, euh, ñëwal fii États-Unis mhm. nga xool chanteurs yi. Mhm. nga xool boxeurs yi. Mhm. soo demee dafay am début booy commencé à l'âge de seize ñaangam saagam jëm si kaw da ngay fin da ngay xiif. da ngay bëree quarante cinq minutes jàppal bàyyi la nga soo demee ba tollu si foo xamante ni yor nga xaalis. Mm. commencé nga moo mënuñ turi turi léegi dootoo parce que da ngay jaay sa bopp boo jaree nag après commercial day dugg bu commercial duggee dootoo amati jot. yaa ngi indi waxu Moustala ba. waaw Moustala borom muusu beñe bi moom mës a téye ci live ne ma rëg-rëg bu noosulee noos. kon li ngay wax ni mooy mbëri dañuy noos. déedéet loolu du mbëri loolu fépp la loolu c'est très normal eh, kii euh, kii. Euh, buzz yow bi ngay jàng école bi ngay jàng école bokkul ak léegi fi nga toll. mais dama lay jox exemple bu bu may créer Lutte uh-huh. TV. boobu mu ma fekk Canada. dama doon dama doon dama doon codé dafa site internet dama ko doon defar de à cinq heures du matin ma tëdd cinq heures du matin yeewu neuf heures neuf heures trente neuf cinq mu fekk ma bureau parce que sama bureau dafa jege woon sama kër. Uh-huh. damay sangu fat fat benn dix minutes sol dix minutes dox quinze minutes yegg sama bureau. liggéey su ma posé. Mm. su ma posé ma joobaat ci sit bi. Mm. dugal ay article su ma wàccee 17 heures mu ñëwaat noppaliku deux heures de temps sieste liggéeyaat ba encore ci site bi ba cinq heures du matin pour dëggal li nga doon wax mais depuis que affaire yi commencé dox léegi man sama kër boo fi ñëwee quatorze heures quinze heures damay mm-hmm. nelaw. Mm. waaw man di seize heures laa yeewu. laa preuve xam nga mooy lan. xoolal ñun bëri bu ñuy door a commencé koo ci ne koo ci koo ci ne takkal day mer. Eh, eh, jabar day mer ba ñun ñëpp dañuy yéex a takk des fois mooy xoolal doo dara parce que da nga naan man sama sama sama sama life lii la bu dee ñenn ñu ne dama bëgg yóbbu sama yaay maa ko dama bëgg def ni jàppal baay mais boo demee ba yàlla defal projet yooyu muy muy aboutir mënut te bokk ak avant léegi nag mm-hmm. da ngay profité ci benn affaire mooy mm-hmm. soo soo faytee ba am tour léegi sa mm-hmm. tur boobu da koy utiliser pour mm. say pour sa am na après yow famille booy am après ñooñu dañ am wàll ci yow. Mm-hmm. léegi nag mm. temps boobu ngay ngay ngay ngay consacré ci moo ci ñoom ak ci lijjanti sa bopp ak jàppal bàyyal du loo permettre mm. li nga doon def bi ngay nekk xale dootoo ko mënati. Mm-hmm. mooy waral des fois nga nekk nga nekk tey jii nga nekk fii nga nekk di def euh, euh, nga nekk ci rab bi di fayet nga jékki-jékki dem ci movie bi parce que am na booy yu bees yu ñëw. Mm-hmm. effectivement noonu la Sénégal mën a demee. ki nit du nekk fenn éternel. kon da nga bëgg wax fu mu toll nii c'est la c'est le début de la fin pour Balla Gaye numéro 2. Balla bu la ko waxee bu la ko waxul instant bi Balla daj nay coono Balla li koy li koy dese maanaam moom laa doon sax mooy li koy li dese Boy Niang ci làmb desetul Balla ci làmb. mais mais mais mais mais Yékini Junior loolu est-ce que jar na nga jël 60 pour cent teg ko ci Boy Niang numéro 2. non non parce que oui boo ñu waxee dans le long terme waaw mais 60 pour cent ci Boy Niang numéro 2. 60 pour cent bi li doon wax sànq gis nga lim lay jaral lim li ngay li ngay dajee coono yenn affaire yi ngay def yëpp ci booy Niang moom mooy gën a moom mooy gën a mooy daj coono que Balla léegi. Balla mm-hmm. ñaata champion la daan. Mm-hmm. Mm-hmm. ñaata combat yu mag la daan. bi mu koy bi koy daan lan la daj. fan la jaar ak ñoom. donc Boy Niang bi day tuuti ci moom. par rapport ak fi mu jaar. foofu laay teg ne Boy Niang dafay am dafay maanaam dafay am rage. pour dem hmm. jëli loo xam ni peut daan na ko rêvé. Hmm. mais rage hmm. bi xanaa nekk fi woon ci bu muy bëre euh, tafatil nag réussite bi réussite bi day dépendre ci moom. waxuma boo ñaa day daan de. bon dañuy analyse nag ah. je veux dire non non je veux dire force boobu mu am da koy exploité wala mu des ci moom. est ce que xam nga la moom a gën a neex ci làmb Yékini Junior. waaw xam nga gis nga ay ñoom Pape Sarr yi nii ah. ah. ay tafaakaan yi gis ñuy def nii yëpp presse moo leen ko daaxoon ci Balla ak Modou Lo. billaay. presse presse ah xoolal kër Balla Gaye de filmé ko di ko kër yi. mais yooyu yëpp dañ sotti. dana presse lu muy def noonu. maa ngi koy wax na ko bàyyi. lu <laughs> bàyyi lu muy def. kon tey su xam nga gars yi dañu. dañu <laughs> léegi gars yi. presse bàyyi ma yeggali presse presse bàyyi ma wax wax bi loolu fii la ñu fekk. presse def yi muy def yëpp mais presse gëm Modou yaakaar Modou Lo mais léegi presse Balla Gaye da koo yar Balla Gaye la mu def Modou Lo moo tax presse dafa jox cër Balla Gaye fu mu toll nii. <laughs> mais gis nga benn affaire dafa am buzz boobu ñuy def loolu xala hmm. boobu ñuy def loolu yëpp. Hmm. dañ doon jaay combat man dama doon jaay combat rek. doon sooy ñoom Aziz ak loolu yëpp dara nekk si mais nag affaire dafa jëloon ay emploi presse da nga doon dawal oto. dem ba kër Balla Gaye di ñoom ñoo ma si dugal Aziz Ndiaye moo ànd ak Balla hmm. ma ne ma maa ngi nii jóge Fatick. Hmm. xaar ma hmm. mu paas ma Balla Gaye. ma ne ko Casamance laa dëkk dem naa fépp. te incha allah tooñante. mais est-ce que du foofu nga jaaree yow fa nga jaaree ba léegi nga ragal Balla Gaye parce que foofu boobu combat boobu foogoon foogoon nga ni Balla jeexal na. Beuz. Mhm. su ma waxee dëgg ku nekk sa akulaataala. Mhm. bi Modou Lo demee préparé ba ñëw. Mhm. le 6 janvier ma dem fekk ko fi mu nekkoon. ñu waxtaan ma xool Modou Lo. xaw ma yaakaar. Hmm? waaw. lu Yékini Junior waxoon. moom moo feeñ ci Modou Lo dafa ngeeroon ci combat boobu. dafa sonn dafa ñëw sonn am na benn photo boo xam ne dama ko gardé mi ngi sama téléphone su ma coupé naa la ko envoyé Modou dafa taxaw ak Franc ak euh, Goro Sock mel ni seen rakk mel ni xale kanam bi sonn bi ñu demee stade ba nga xam ne man damay tàng si géew si loolu man du mais bi ma ñëwee ba jàkkaarloo affaire dama leen xool am na benn image boo xam ne kii bi yéen ko jël Aziz moo a ko envoyé maa ngi yor sama kurus nii taxaw dama sedd guy Moodu maa ko gunge maa dem ba euh, néegam tekkil ko ngembam jour boobu ñëpp kenn ñëpp a perdre fii man rek maa si ba si néegam bu daanoo maa ñëw yëkkati ko parce que boobu lu la bettul la. Hmm. tey bu xam nga man duma kuy yàq làmb hmm. mais tey su ma nekkul woon promoteur bi Modou Lo Balla di ko jekk noonu damay dugg si géew bi maa ngi si buntu géew bi taxaw hmm. mais du man maa war a yàq làmb mais foofu xam naa ni foofu pour Modou génn ko day jafe dañuy wax nii nag di tooñ wala ñu faral suñu mbër ak lépp mais am na logique boo xam ne dañuy dund làmb xam nañ ko dañ xam ne Modou bu pare comprendre du noonu lay bëre Balla Gaye day lucide moo bëriwul ak Balla Gaye ak lucidité. bëriwul ak Balla Gaye ak dégg chinois yi ñu ngi bind de. non chinois yi chinois yi lu ñu waxati. dañuy dañuy mer. non am nga chinois yi xam nga chinois yi nag naa la xamal dara démb am na ku ma ko wax au téléphone. dañuy waxtaan xel rek. démb am na ku ma wax lool ci au téléphone ne ma. Mhm. xaw ma toon tuuti quoi. xaawa toon tuuti loolu suñu diggante la yom ñun suñu diggante mhm. quoi lool dañ ko wax ci suuf quatre cent six personnes ma fi dekk mhm. loolu bu mu génn fii de mhm. xam ngeen xam ngeen xam ngeen ni man man man vert laa man vert la vert vert rouge laa <laughs> mais nee nañ chinois yi ak ak ak ak ci politique ñu faral vert rouge yi benn lañu nee nañu tey jii ci internet bi képp ku àndul ak ñoom dictature la lay teg loolu dimb rek c'est pas démb rek laa koy mais est-ce que xam nga chinois yi noonu la mel chinois yi képp ku àndul ak ñoom ci internet bi ci commentaire yi dina la yegg lu mel ni xeme dina la déstabiliser man am naa ay chinois yoo xamante ne ay kilifa yu mag lañ. Mm. pour man sax du duñu dugg ci ay live di commentaire parce que wax dëgg yàlla ci seen cadre liggéey parce que tey am na yenn poste bu koy occupé ci réew mi am nga danga nga war a am droit de réserve ci lu bëri liy xew ci ay cadre sport warul di ci gis ak yeneen mm. mais dama leen di gis ñuy dugg di commentaire di déstabiliser les intervenants ba ma ne ñii lu ñuy def teyuñu ko les chinois ils son comme ça ak les pro les pro Sonko. non mais loo non mais loolu loolu loolu Sénégal la de du pro Sonko de mhm. ak kii Sénégal moo demee noonu. Mhm. am na am na benn jour ndeysaan bi bi ci mars yi di am affaire mars yi. histoire mhm. mars yi. boobu noonu la ma naqaree ñun ne fii mais dama jékki-jékki benn gars envoyé ma vidéo quoi na ma yéen lu tax du ngeen wax ci affaire yi. waaw dañ lay menacé def jàppal bàyyil te yàlla xam na ne bës moo wax la dara tey jii hmm. Ousmane Sonko bokk nañ benn kër yàlla xam na loolu ñu bëri xamuñu ko nag dëkk nañ dëkk plus de ay yaakaar na ay loolu ay deux mille dix deux mille onze mu nekk ku cool nekk ci suuf man ma dëkk ci kaw suñu beneen dëkkaloo nañ ñun trois ñoo ne ci kër euh, Ouest Foire deux mille onze xaw ma deux mille douze mais ah? ñaata at ngeen dëkk est que deful ay deux trois ans ba jàpp mu at yi mais côté côté yooyu la daal. boobu amoon na fois na soxna quoi. ba moog soxnaam. Hmm. Hmm, ok nice macha allah. Eh, mais mais. Hmm. xam nga dañ leen wax Sénégal daal tuuti boo xamante ni. nit ñi. kenn wax sa xalaat quoi. dëgg dafa metti dafa eh, dictature la quoi man moom laa man loolu laa dul nangu man du ma nangu kenn ku ñu appliqué dictature. pro Sonko bi nee na Yékini Junior futur roi des arènes ndax wax na lu ko arrangé. ah eh, non bu yow foo débat bi nag bàyyil noonu rek. presse yooyu ko arrangé presse presse presse la. nañ dem ci baal nañ dem ci baal ak kii rek kii. mais am na am na am na am na solo trop am na solo parce que Yékini Junior itam xam-xam ngay waxee et puis ku ci nekk ak sa analyse xam nga xam nga il faut que parfois ñuy ñuy nangul nit ñi seen analyse. mooy nit ñi ginnaaw bu ñu décortiquer ba pare. Mm. ñu laaj leen kan ngeen yaakaar ni mooy daal favori bi. ñu wax ko ñoom seen sensation. mais Yékini Junior boo déggee ni mu décortiquer da jàpp ni Balla Gaye mooy daal. mais parce que dafa jël avantage yu bëri ci bëri bi ak. ci bi jox ko Balla Gaye mais bu mu ñëwee ba ci moom tànn kan la scénario ci maanaam décortiquer yi mu décortiquer ban scénario moo ci gën a probable. Mm-hmm. mu jël victoire bi jox ko Boy Niang numéro 2. donc mm-hmm. loolu nañ ko nangul nit ñi quoi ñu bañ a ñu bañ a indi dictature mais précise ko. presque kontaan naa ci yow dafa neex quoi. ah mais noonu la on parle de façon spontanée rek. wax ñu gis quoi. te yàlla rek la dëgg la ana Tafa Kandji te duggul. non Tafa Kandji non la bu ñu dugal Tafa Kandji man moom bon. faralu ma Boy Niang faralu ma Balla Gaye comprendre nga mais man damay analyser combat xool ñi ñu a bëree contre contre euh, Zos man maa yóbbu Zos. Mhm. maa hmm. yóbbu Zos. la teel jos dëgg la waaw stade ba dernière signature bi noonu lañ ko bëreloo. Mm. ne lu mu def taxawal jour bu jour bu dawee ñëw ak yow su ngeen dajee nga plaqué ko te noonu la demee. lu tax ngeen ne ko mu plaqué ko. parce que loolu moo doon combat bi jos mënul mbot booy ñaar billahi wallahi jour combat bi su suba man góor a soog ak jos ñoo ànd géej. Mm. ma ma jàpp loxo ma may bërëx moom ñuy échauffé wu. dama wañ jos mm. ba mu tëdd si suba si mm. laaj ko góor a mm. sot mais loolu lañ ko bëreloo moo tax ma ne Balla su ñëwee téye boppam est que booy ñaatu am problème parce que Balla lu mu dee dee dee dee am na lu mu mën si bëre te am na tuuti kàttan jeexalagul lenn kañ mooy daan Balla mu ñëw bëgg fa jëlee booy ñaata du ko fa fekk ndax booy ñaata dafay fàkkat te mm. tam si fàkkat boobu wër nomb lay mën na ko wëri nomb waaye bal soo koy wëri nomb day sànni loxo bi ñëw da ko doon def gaa yi bu baax te noonu la daane qualifié même si bàyyi xel mm-hmm. analyse mm. yooyu dafa lu doy waar raale man dafa doon setaan mbapat dafa doon setaan mbapat macha allah am na solo am na solo am na solo mais kontaan naa ci yow presse Yékini Junior kàddu gu mujj gi di la bu baax ci dérangement bi ak waxtaan bi yaa ngi ci oto ba pare nga arrêté say activités yëpp. Mhm. bougé woo toog di waxtaan ak ñun kàddu gu mujj gi balaa ñu jaal ci yeneen ni mhm. no c'est avec plaisir parce que déjà comme li ma la nga sànq liggéey te yaa ngi sonn ci affaire vraiment mhm. di wax ni tamit sànq daawoo sànq yaa ngi koy wax ci biir wax ji mooy Sénégal booy liggéey rek. mën nga bëri ay noon trop mais yoon bi nga nekk gis naa ni làmb yaa ngi koy professionnaliser parce que tey jii fu waay mën a nekk yaa ngi participer mhm. yaa ngi boole ñëpp donc mhm. continuer noonu mhm. yàlla defal leen jàmm amiin amiin di nuyu sama copain ñu ne ci live bi yëpp macha allah jaajëf di yàlla di ñaan yàlla réussite réussite ci combat bi ndax bu doxee rek dina baax jërëjëf jërëjëf yàlla na yàlla fay yàlla na yàlla defal yi ñaar ñëpp prince Sissoko yàlla na yàlla defal jàmm yi ñaar ñëpp yow prince Sissoko yëpp